maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp tey bëggoon jël kàddu au nom des députés surtout au nom du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi ci ndigalu président du groupe muy Birame Souleye Diop ma bëggoon rek xam naa guddal parce que am na lu ñu fi jot wax bëggoon rek def ñaar ba ñetti appel di quand même notre féliciter sénégalais féliciter ces intellectuels yi même ce sont d'anciens premiers ministres parce que demb gis nañu une déclaration bu 87 personnalités dont d'anciens premiers ministres et même d'anciens directeurs de grandes sociétés et d'anciens ministères ministres des Finances qui étaient même dans le régime du président Macky Sall ça veut dire quoi ça veut dire que Sénégal tout le monde ici est intéressé par ce qui se passe en termes de violation de l'état de droit en termes de violation de la démocratie en termes de l'héritage culturel de nga la fi mag ñu donc je bëggoon féliciter ces Sénégalais là féliciter le peuple sénégalais de nga depuis que le Sénégal est là nous avons tous dafa un héritage Nous avons perpétué, perpétuer mais malheureusement le régime de Macky Sall est en train de tout détruire Je bëggoon faire def appel le premier c'est par rapport à la justice de notre pays parce que si demain, un juge doit rendre une décision mu une exception ça veut dire que la justice actuellement doit éloigner du peuple sénégalais donc le 17 le 17 c'est un jour de réconciliation de la justice avec son peuple c'est extrêmement important Nous décourager au décourager la justice et pourtant ce yaay elle m'a marché sur la langue le juge Sabassi Faye n'a posé qu'un acte très, très banal et ordinaire. Il n'a fait que dire le droit. Donc, lolo, waru sax au Sénégal. Donc, bu avez ba dit Sénégalais yi mooy ni effectivement justice tout ak peuple te le 17 suba Inshallah. normalement c'est un nouveau point de départ pour la justice sénégalaise bi nga xamné da réconcilier avec son peuple. Benen bi ma aux forces de défense et de sécurité ñoo bokk lépp nous bokk lépp man en mars 2021 quand j'ai été arrêté xam ko koo qui ci force de sécurité le bokkoon le bokkoon doomam mon na ci ñi nga xam ne dañu décédé ci événement euh, événement événement mars donc personne n'est à l'abri li ñu leen di ñaan mooy sénégalais yi nga xam souba suba dañu fas ne génn dans la paix les ñu wax surtout dans la paix ñu encadrer les normalement comme Wad l'avait fait en 2011, j'en profite pour lui rendre hommage, parce que Abdoulaye Wad, quoi qu'on puisse dire, a été le champ de la démocratie. Il a tout fait pour que la démocratie reste ce qu'elle a été. En 2011, Maître Abdoulaye Wad nous l'a montré. Donc, nous avons aussi que ces forces de l'ordre-là, def regretter parce que grenade yi ngay dóor ci kaw nit ñi wala les balles li ngay dóor ci kaw nit ñi mën na dal ci sa njabot mën na dal ci sa dom mën na dal ci sa jarbat mën na dal ci sa dëkkandoo donc appel bobu la bëggoon def ben appel bi makoy def à l'endroit de tous les sénégalais vous les jeunes yi nga xam ne yéen ngi jël gal yi di dem c'est à vous que nous nous adressons tok leen yéen ñi ngeen xamni ni njabot i dom seen jarbat ñu ngi ci biir kasso yi yéen famille yoyu yéen aussi bokk ngeen ci appel bi ñuy def yéen njaboot yi ngeen xamni ni ñi ngeen xamni ni famille ngeen xamni seeni dom daanu nañu ci bal assassinu Macky Sall yéen aussi cet appel là vous concerne suba dañoo bëgg incha allah que tous les sénégalais gor jigen mak ndaw ouvrier cadre de banque cadre d'administration ñi nga xamni démocratie mo leen soxal parce que mbir mi nekkatul mbiru président Ousmane Sonko kessé

utal ce drapeau ce buntu cœur, ba la neexee taxawal sa buntu cœur, jël ce drapeau Nous avons xam le matin avant ñuy nous ñu ngi ci tali bi ku ci yor sa auto wala sa moto bu la nous nga klaxonner pour montrer que demain dafa doon nekk le jour où la démocratie sénégalaise nous nga xam ni nërmeelu na mu jël mu insister cet homme le président Ousmane Sonko d'une dimension exceptionnelle cet homme-là vous a tout donné. Ousmane Sonko, Il est le symbole du sacrifice patriotique. Amul Lumu Dajul de 2014 à maintenant, depuis que PASSEF a été créé. Amul Lumu Dajul. suma vous ay dumbo wax na ko moom ñu nekkoon la le président de Fall à l'Assemblée nationale gis nañ la mu doon daj ñu jógee fa 2019 ñu jógee ay élection mu nekk troisième Nous avons dit qu'il il faut l'arrêter. et depuis lors gis ngeen li mu subir sacrifice yi def c'est pour vous le peuple sénégalais la ko defalee ko boppam parce que bu doon ne boppam pas lay out ce du teud feulé au Cap Manuel ma nga de de de len de di leen yiir donc c'est l'occasion pour vous le peuple sénégalais bi nga xamni sondage yi ñi def yëpp won na ni bu ñu démé élection à 8h, à midi le président Ousmane Sonko aura un minimum de 60 ces 60% là ce sont vous les sénégalais donc yéen waru leen seetaan seen espoir de Nermelo. espoir bi nga xam ni am nañ ko ci président Ousmane Sonko suba war nañ ko jëmmal war nañ ko woné dans la paix et la sérénité tojloowuñu kenn yàqloowuñu kenn mais c'est un jour de paix pour ñun mom la wara don c'est un jour de liberté loolu la don a suba donc ñu leen di wo kenn ku ci ne taxaway bo meuna am na ko am pour que en fin de compte que Macky Sall la momul ne réew mi dañ ko ko denk liñu mënul nangu moy mu utiliser justice pour éliminer des candidats lolu defon nako en 2019 avec le président Karim Wade et le président Khalifa Sall Si ba léegi nag mu ngi koy jëm ci président Ousmane Sonko ba suñu jonne yalla tay sotégul kon war xam gëm yalla né du nous mës a am inshallah gain de cause sur le président Ousmane Sonko parce que au-delà de ce qu'il incarne pour nous tous au-delà de ce qu'il incarne pour cette jeunesse là nous lo xamné nak Nous wax deug yalla ci loxo lañ koy parce que bu ngeen xolé le président Ousmane Sonko nañ doon accélérer ay dossiers def ko fast track légui nak légui nak c'est le contraire ñom ñoy yéexal ay dossiers président Ousmane Sonko depuis que le juge Sabassi Faye a donné sa décision gis ngeen façon toute façon, ñu pour dossier pour que d'ici le 11 que le président Ousmane ne puisse pas déposer son dossier fan une décision de justice qui euh, euh, euh, automatiquement ci sasi si recours et que le recours est suspensif que je suis droit Sénégal actuellement Je man defuma droit amna droit mais ko xamné ne mu ngi en classe de terminal di geustu droit sax xamné ne ni ce recours là n'est pas suspensif tay nak Sénégal fofu la toll lolu nak nako nit ñi baye xel parce que tay bu yaakaré ni dina paré ci président Ousmane te du ma sa paré ci mom nak quelle que soit la situation peut-être ci ñeneen la jëm parce que li mu bëgg moy li xew ay Congo xaw yeneen dëkk mu def ko fii dafa bëgg une dictature à vie te lolu duñ ko nangu donc sénégalais debout demain dans la paix et la sérénité pour que démocratie bi nga xamné mom lañ fi fekk ñu xex ko suñu mam xex ko bayiko fi suñu mak xex ko bayiko fi suñu baye xex ko bayiko fi que Macky Sall aussi bayiko fi mu dem abal suñu rew on lui fait un dernier appel à lui rew mi dond ko N'ako xam ci rew mi le jàngee xaalisu rew mi moko ko ci école primaire école secondaire ba université xaalisu rew mi mom moko def cadre à à à à Petrosen xaalisu rew mi moko def ministre xaalisu rew mi moko def euh, premier ministre. Khalou moi le président de l'Assemblée nationale Khalou moi le président de la République Macky Sall a tout eu grâce au peuple sénégalais il ne doit pas finir tout ni Lorsque lorsque sénégalais est ñu Moi, le contraire Mais dès le il va partir nous allons tous partir mais le Sénégal va rester donc sous Inch'Allah, ce sera un jour de gloire ce sera un jour de paix mais sera un jour de réconciliation de la justice avec le peuple sénégalais salaamaaleykum Merci Abou Labas. On laisse la parole à Mustafa Girassi.